والخاتم لما سبق بلا ريب ناصر الحق بالحق بلا نزاع والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mbokki wa aciddu lahum mastataatum min quwa ak mbokki mbooleem majmuaat yi nga xam ni njubu yàlla gi moo leen ñor assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal lu bari di leen ñaanal yiw di leen ñaanal aafiya ak tawfiq tey sunu kàddu yi dañu koy yëkkati jëmale ko ci sunu menn mbokk di boroom xam-xam bu mag ñu koy wax Salahuddin daan ko dàkkantele at tijaani muy koo xam ne nawoon naa xam-xamam lool ndax wax dëgg yàlla xam-xamam bari na te yaatu na te itam ay leeralam am na solo waaye li ko dal nag ba tax ma yëkkati sama kàddu mooy li arab yi léeb ne li kulli jawaadin kabwa wali kulli sarimin nabwa arab yi ñoo léb loolu ñoo wax ne naaru góor lu mu aay aay bis dana ñëw mu fakkas salu jaasi lu mu ñëw ñëw bis dana ñëw mu maax tey nag naaru góor wi fakkas salu na jaas ju ñëw ji maax na sopp nañ ko lool nag ndax xam-xamam waaye dafa am njuumte gu ko dal goo xam ne daf ko yóbbee yeneen njuumte yu gën a doy waar loolu moo tax ñu war a bàyyi xel njuumte gis nga man ngaa juum ci menn mbir bu ñu la jubbantee te yow nga jàpp ne ki lay jubbanti yaa ko gën a mat waru laa mën a jubbanti loolu da lay yóbbe ci nga gën a nuur ci njuumte te loolu xeet la ci ak rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne alkibru batrul xaqi wa xamtu nnaas nee na rëy mooy bañ dëgg buñ la waxee dëgg doo ko nangu ak lan xeeb nit ñi jàpp ne nit ñi lañ lay wax yaa leen ko gën a xam ñoom xamuñu yow yaa xam loolu ak rëy la loolu moo yàqaloon iblis bi mu waxee ni eh, xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin bi mu waxee boroomam ne ko aadama mi ngi may sujootloo maa ko gën ndax moom ci safara nga ko man ci safara nga ma binde moom ci ban nga ko binde man xaw ma sax kan moo wax iblis ne ko safara gën ban ba moom mu mu fas yéenee gën aadama ngir teg ko ci tegu ko ci ragal yàlla mais mi ngi ko teg ci safara wiñ ko binde loolu ak rëy moo koy waral rëy day tax nit ki bañ dëgg léegi nag dafa am baat boo xam ne ci jaw jawharatul kamal baat boo xam ne boroom xam-xami tariqa bi leeraloon nañ ci leeral yoo xam ne kenn amatul lum ciy wax même wahabi yu ne yi doon weddi baat bi sax naan baat boobu aw xas la ci yonant bi jaaduwul kenn du ko wax di ko wax nangam nangam wahabi yu ne yooyu yëpp lem nañ seen i génn toog ci fi mu toll nii kenn amul kenn ci ñoom ku ñemee def face à face boroom xam-xame tariqa bi weddi baat bi wax ko ci télé wala ci rajo ñëpp dégg ndax xam nga ne amoo lay mënuñu koo weddi donte la kuy wër lu mu weddi moom bés bu nekk mu ne weddi naa lii ndax méccam weddi dafa gën a yomb loolu la maam Cheikh Ahmed Tidiane si waxoon radiallahu anhu ne mécce yëpp bi ci gën a yomb mooy méccam weddi bi uude bii defar dàll dàll wi yaa nga tëdd sa kër di nelaw muy tàpp ak defar ak kol yow da ngay bàyyi ba dàll yu pare rek nga ne bii dafa xaw a kaami fii mu yomb ba bëgg a dee weddi weddee yomb waaw weddi moo yomb waaye nag nga layyi lay wu wér nga layal li ngay wax loolu moo jafe moo tax kum neex nga weddi lu la neex waaye ñi ngi lay xaar bu lay yi jotee doo ko mën a lay yi loolu nag moo dal diin mi ñu daan dàkkantele ak tijjaan yi Salahuddin nag waxul ne moom génn na ci tariqa bi waxu ko waxu ko te wanewu ko fenn ci am mbindam waaye comme dafa def loo xam ne jàpp naa ni man li ma gëm jàpp ko mooy ku ko def dangay dog ci tariqa bi te moom def na loolu loolu moo tax ma wax ki ñu daan dàkkante la ak tijaan yi yéenewu ko nag mu dog ci tariqa bi yéenewu ma ko waaye li mu def nag moom charti tariqa bi ñoo koy génnee noonu laa déggee tariqa bi su ko defee kuy ñëw di ñaan si wird wirdu tariqa bi wird wiñ lay jox muqaddam bi lay jox wird wird wi mu lay jox day doon wird wi sayidna cheikh jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais su fekkee weneen la lay jox wala woowi mu mu am baat yu mu ronk teg fële dugal yeneen baat bu boobaa joxu la wirdu woowa kon nag kooku nekkatul muqaddamu Seydina Cheikh muqaddamu keneen wala muqaddamu boppam la ndax wirdu yi muy joxe baat yam ca def ay baati boppam la wahaabi yu nay nag ñoom dañoo jogoon pour wax ne baatu al askam baat la boo xam ne ni ñu ko tëggee maanaam weerul maanaam mi ñu ci jublu mënu koo firi ñoom loolu lañ waxoon li ci boroom xam-xami tariqa bi bind loolu yëpp bu ma ko bëggee wax dama fi nawet ngeen nawet fi man noor fi ngeen noor fi moo tax loolu du ñu ñëw ci loolu yëpp di ko wax waaye dañuy wax ne li ñu gëm ci waxu Salahuddin liñ ci gëm mën nañoo doyloo sax nag radd bi nga xam ne eh, sayidi al ustaaz Muhammad Radi Gannoun def na ko ba raddu boobu moom bi mu ci jotee ba tontuwaat tontam boobee la tax mu daanu ca mu daanu ca jël ba mu ca daanu li ko waral mooy wax nañ ko dëgg sa nanguwu ko parce que boo nanguwul dëgg loo wax day dëng waaw boo nanguwul dëgg gi rek loo wax day dëng léegi nag moom dafa changé jawharatul kamal dafa ñëw fekk baat bi doon al asqam mu changé ko def ko al aqwam mu changé ko def ko al aqwam léegi baat bi nekkoon euh, al aqwam fi al aqwam nekkoon mu def al akram maanaam bu boobaa da ngay wax allahumma salli wa sallim ala ayni alxaqi allati tatajalla minha urushu alxaqaiq ayni almaarifi al akram siratika tammi al aqwam loolu la waa ji def loolu nag du noonu loolu moom ci boppam wax na boppam ne du noonu ci téere yi mu bind bi ci njëkk a tudd mooy téere bu mu bi mu tudde an nuur fi tariqati tijaniya indi na ci jawharatul kamal indeeka ni mu nekk ci mboolem téere tariqa bi te mooy allahumma salli wa sallim ala ayni alxaqi allati tatajalla minha urushu alxaqaiq ayni almaarifi alaqwam siratika tammil asqam noona la ko fa indee boo demee ci téeréem bu ñuy wax arraxiqul maxtuum ci xaaj bu njëkk ba ci page trois cent trente et un noonu la ko indee ba tey allahumma salli wa sallim ala ayni alxaqi allati tatajalla minha urushu alxaqaiq ayni almaarifi al aqwam siratika tammi al asqam loolu foo dem ci téere tariqa bi noonu lañ ko binde lu dul boo demee ci ci e, téere bi nu mu tuddati xallul aqfaal maanaam nañu ko binde ci tabaa bi ma yor am na njuumte mais njuumte la rectifié nañ ko ci biir sharxa bi moo lay xamal kon loolu moom xata matbai la mais rectifié nañ ko ci biir sharxa bi kon siratika tammil asqam moo am te loolu la saydi ali harazim barada wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko imla sayidna cheikh ahmad al tijaani loolu salahuddin moom itam loolu la wax nee na yonent bi moo ko imla sayidna cheikh ahmad al tijaani loolu la wax ci arrahiqul maxtuum loolu la baamuwaat ci annuur barki démb boo njaay nag mu wax ne loolu ñëwewul noonu ci cheikh maanaam yonent bi waxewu ko noonu te Seydi Ali Harazim waxul ne cheikh moo ma wax ne yonent bi nii la ma ko waxee ne Ali Harazim barada mën naa am loolu ay géntam la wala ay mushahadatam loolu ci raddam bu mujj bi nga xam ne amatul lu wax la waxe waxee loolu boroom xam-xam la jàmbaar la waaye nag këpp na nag li kulli jawaadin kabwa wa li kulli saarimin nabwa su ko defee moom li mu bind ci ay téeréem muy ay téere yu am solo téere yooyu la mu ca bind loola daa wuuteeg li muy wax nii léegi nag damaa xamul dafa fàtte lim bindoon ci an nuur wala mu fàtte limu bindoon ci arraxiqul maxtuum li mu ci kashful xuyum nga xam ne loolu yëpp lenn la moo dëppoog li nekk ci rimaax nekk ci buxyatul mustafid nekk ci alyaqutatul farida nekk ci mbooleem téere yi tuddul te ñu bind ci jawharatul kamal mu dëppoo ci ak ñoom bi yoon nag barki démboo njaay mu ne léegi loolu daf koy soppi nga xam ne moom boo ko waxee li nga soppi foo ko jëlee xamul fu mu ko jëlee parce que bu dee li ñu xamoon mi ngi jóge ci Seydina Cheikh Seydina Cheikh nee na mi ngi jóge ci yonent bi moom nag lii mu wax kenn xamul fu mu xanaa ci boppam ci moom la jóge loolu nag wax dëgg yàlla ak lu ñu naw naw xam-xamam du tax ñu ñu nangu ñu nangu li muy wax du tax ñu nangu li muy wax ndax loolu wérul waaw li muy wax wérul boo demee ci annuur wala nga dem ci al arrahiqul maxtuum moom wax na fa moom moom e, salahuddin wax na ci e, baatu al asqam ba koy firi dafa wax wahiya min saqama yasqimu ka adala yaadilu waznan wa maanan wa laysat min saqima yasqamu ka marida waznan wa maanan loolu la wax dafa wax ni baatu al asqam bi nekk ci jawharatul kamal mi ngi jóge ci saqama saqama kalimatun maghribiya la li muy firi mooy istaqaama jub na loolu lay firi ci alluga al maghribiya maanaam saqama bi fathil qaaf loolu lay firi mu ne al asqam mi ngi jóge ci saqama bi fatxil qaaf yasqimu mu ne kaada la yaadilu waznan wa maanan ñoo bokk waznu bokk maana kon siratika tammi al asqam yaani al aadal al aqwam loolu la baat bi di firi yonent bi mooy sa yoon wu mat wi gën a jub sa yoon wi mat wi gën a maandu loolu lay firi ndax mi ngi jóge ci saqama kalima bi nekk maghribiya noon noonu la ko firee parce que saqama maghribiya la saqama yasqimu ka adala yaadilu waznan wa maanan mu ne wa laysat min saqima yasqamu mu ne bi jógewul ci saqima bii firi feebar na saqima bi kasril qaaf saqima yasqamu ka marida yamradu waznan wa maanan nga xam ne feebar lay firi mu ne baat bi jógewul foofu lii la salaahuddin wax tey mu ne baat boobu daf koy dindi daf koy changé léegi li mu waxoon ak li muy bëgg a def nii loolu mooy lan loolu dañ koy bàyyi dañ koy bàyyi boppam mu seet ndax lim bindoon daf koy dindi wàcc ne la ma bindoon baaxul la ma bindoon wérul li waa tariqa bi yëpp bindoon dara wéru ci dal di wax ne lu beex li ma wax nag moo wér waaw ah, su fekkee mën naa wax loolu ma xam ne bay ba mu wax loolu waaw waaye tamit day gën yokku day gën a tooyal ban bi rek waaw day gën a tooyal ban bi rek waaw gën a gën a guddal ab xottikoom rek lool la su ko defee mbokk yi bind nañ defal ko tan bi waaye moom ma nga fas yéene soppiku soppikoom boobee mu di ko gëmloo ay taalibeem ñuy wazifa di jànge noonu jawharatul kamal di ko jànge ni ko soppee moom loolu nag di musiba moo xam ne loolu loolu loolu wahabi bi bëgg lu bon mën na cee kontaan te fekk xamuñu ne xamuñu ne alquran sax am na ñu ciy bind di ko saboote waaye du wàññi dara ci pas-pasu jullit ñi am na ñuy bind naan tanaqudatul quran ne alquran dafa am ay tanaqudat wax weddi dafa am ci biir alquran te du dëgg amul waaye ñi koy wax du tax loolu wàññi dara alquran loolu moo tax wahabi yu ne yi mbaw di wër salaatul fatiha euh, euh, jawharatul kamal ak yennati boroom xam-xam yi nga xam ne seytaane mën na leen donte la seytaane ku néew kàttan la waaye mën na leen ndax sa ngëm sa pas-pas bu deng-deng rek seytaane ëpp la kàttan seytaane mën na leen ba ñuy jéem a soppi baatu askan bi ñooñu la ñuy def mënula wàññi dara ci dayo jawharatul kamal ndax moom bi mu leeralee loolu ba noppi bi mu waxee ne loolu lay firi ne al asqam ngi jóge ci saqama bi firi adala yaadilu waznan wa maanan bi mu waxee loolu ba noppi dafa ni jawharatul kamal moom yi nag la jiitu loolu sax mu ne jawharatul kamal moom yi nag yonent bi moo ko imla sayiduna cheikh ahmad tijaani loolu la salahuddin wax ci téereem bii di an nuur fi tariqati tijaniya loolu la wax ci téeréem bi di a arraxiqul maxtuum waaye loolu la weddi bërki démb ne loolu euh, leerul ne yonent bi moom <laughs> cheikh moo wax ne yonent bi moom ak a imlaal léegi kon lim bindoon moom fum ko jëlee woon waaye loolu même moom bu bindul woon loolu du tere loolu lañuy ñuy gëm ndax fekk nañ ko ci yeneen téere yoo xam ne téereem yi ëpp ko solo ok kon loolu bu leeree rek dafay am solo moom salahuddin mu continuer weddiwaat ne jawharatul kamal tahara maiya biñ ciy wax du war dañ ko cee sopp dong waaye bu la neexee nga tiim te jàng jawharatul kamal bu fekkee ni ñu indee texte bi moo ko bind bu fekkee moo bind loolu bu fekkee moo bind loolu fakastaluwaat na ndax moom li mu bind ci an nuur ci téere boobu li mu ci bind bind ko itam ci e, arraxiqul maxtuum lam fa wax mooy altaharatu almaiya walmakaanu altahir alladi yasaau sittata ashxaas chartu sixatin fi ljawhara xatta law araada qiraataha marratan waxida loolu da la wax boo demee ci annuur ci page cent trente deux loolu la fa wax nee na laabug ndox gi gi ñu chartal ci jawharatul kamal ak yaataayu barab biñ ci chartal nee na loolu chartu sixa ci jawhara mu ne donte le benn jawhara kese kese kese doo bëgg a jàng sax loolu chartu sixa la ci loolu din bëgg cee génn wala dafa fàtte ne wax na lii dafa fàtte na bind na lii léegi mi ngi ñëw fii barki démboo njaay ne léegi loolu du chartu sixa dañ ko cee sopp dong defe naa ne kooku waxam dootul aw lay ci tariqa bi parce que bu ñu xoolee lim wax li mu li mu bind ci ay téeréem mu dëppoo li waa tariqa bi bind ñu dem ba jëmmi jamono xaw ma dafa fàtte ne loolu la bindoon xaw ma dafa weddi lam bindoon waaye waxul ne wala mu bind ne weddi naa la ma bindoon waaye daal mi ngi wax lu wuuteeg lam bindoon loolu tanaqut la léegi nag dañuy jàpp ci waxi kii nga xam ne dafa tanaqut wala dañuy jàpp te ña nga xam ne seen wax lenn la mbooloo lañ te ay boroomi xam-xam lañ te salaahu diin xam-xamam li muy yaatu yaatu rawu ndax dañuy jàpp ci waxu salahuddin bàyyi waxu ñooña donte la salahuddin dañuy def jox itibaar dañ koy jox itibaar bu baax ci xam-xam jox ko taqdir bu baax ci xam-xam waaye soppi gi mu soppi ay baat ci jawharatul kamal loolu li ñu jàpp mooy daf koy génne ci tariqa bi ndax mënoo nekk muqaddam ca tariqa bi wax dëgg yàlla nit ki ñëw di jël si wird nga jox ko wird wu bokkul ak wi Seydina Cheikh doon joxe kooku moom sëñ bi kooku muqaddamu borom wird bi ngay joxe ga waaye doo muqaddamu wird bi nga xam ne eh, eh, na Cheikh mi nga xam ne wird bi muy joxe ci yonent bi la ko jële sallallahu alayhi wa sallam su ko defee moom bi mu indee jawhara ba noppi bi mu ko indee jawhara jawhara mi nga xam nga xam ne moo wér moo jaadu moo baax waxuma waxuma bi mu fent waxuma bi mu fent bi nga xam ne moom moo wér moom ci boppam bi mu ko indee ci xalimaam def ko ci téereem ba noppi lii daf cee teg taaliq bii wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu na sayidna cheikh yaqadatan la jox ko jagle-jagley jawharatul kamal mulim lu mat juróom benni jagle-jagle ne yonent bi jox na ko sayidna cheikh ci ci jawharatul kamal bokk na ca jagle-jagle yooyu mooy benn jawharatul kamal boo jàng wecci na adduna bi yëpp bu ñu bu ñu bu ñu sàbbaaloon seen borom benn jawhara bi wecc na ko ñetti yoon bokk na ca mun a képp ku sàlloo di jàng jawharatul kamal juróom-ñaari yoon maanaam ku jàng jawharatul kamal juróom-ñaari yoon ruuxu yonent bi dana teew ak alxulafaawul arbaa nee na du ñu deñ di takkoog yow féeg yaa ngi jàng jawharatul kamal ba ca des mu wax ni képp ku sàlloo di jàng juróom-ñaari jawharatul kamaal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dana la sopp cofeel gu gu gu am xusuusiya cofeel goo xam ne bokkul ak euh, mboolem cofeel yi te nee na waajoo ji di def loolu du génn àdduna mukk lu dul dana bokk ci wali yuy borom bi subhaanahu wa taala ñeenteel ba mu wax ne képp ku jàng fukki jawharatul kamaal ak ñaar boo noppee wax haadihi eh, eh, hadiyatu minni ilayka ya rasul allah sallallahu alayhi wa na mel na ni ziyaara nga yonent bi sallallahu alayhi wa bu tedd ba ziyaara mboolem yonent ak mboolem awliya u yeeg saalixiina yi bi wujud bi nekke ba waxtu wi nga jànge fukki jawharatul kamal ak ñaar juróomeelu tomb ba mu wax ne képp koo xam ne sàlloo na di jàng jawharatul kamal juróom-ñaari yoon bala muy tëdd tey tëdd fu laab te buy tëdd mu ànd ak njàpp dana gis yonant bi sallallahu alayhi wa sallam loolu am nañ ci ay seede yu wóor dégg nga euh, beneen ba mu wax ne gépp jaamu gu waay def te luwul jaamu ga su noppee su jàngee ñetti jawharatul kamal ñetti jawhara yooyee ci seen barke yàlla dana ci jabroo ñàkk a teewlu ga loolu ci gan ci ban jawhara la ko la ko la ko waxe ci jawharatul kamal bi nga xam ci tariqa bi nga xam ne Seydina Cheikh moom la firi ci jawahirul maani yi tudd baatu al astam nga xam ni Seydil Xaaji Malik moom la indi Cheikh Omar Fouti moom la nga xam ne tariqa bi moom lañ xam xamuñu beneen ci jawhara boobu la wax nga ne lii léegi nag comme moom indi na beneen bu bees beneen bu bees boobu yan ñooy ay xawaasam kon loolu di fu ñu war a taxaw seetlu mooy moom jawhara bi muy wax ay baax-baaxam jawhara bi muy wax ay ay sell-sellam indiwu ci ak soppeeku ni mu mel la ko inde léegi nag barki dee moo njaay la indi benn boo xam ne dañuy ronk ay baat roof fa yeneen i baat baat yooyu ñu ronk roof fa yeneen i baat loolu jawharatul kamal la wala lan la loolu jawharatul muharrafa la loolu moom ndax xawaas yi tudd na ko ca loolu daal dëgg-dëgg moom waroon naa seetaat li bind bu baax a baax waroon naa xoolaat bu baax a baax lim bind wala boog risaala bi ko Seydi Mouhamad Raadi Ganoune njëkk a yónnee ba mu gisee risaala boobu ca la waroon a dellu gannaaw xam ne kat daa juum te li kulli jawaadin kabwa wa li kulli saarimin nabwa waaye nag bu bëggee feteerlu nag ne léegi day continuer ci comme wax na ko ba pare dama ciy continuer dama ci dëgër du ci dellu gannaaw ah boo ci delluwul gannaaw itam li nga wax moom dana dellu gannaaw te da ci ciy ñàkkee tariqa bi rek yal nañ ci yàlla musal su ko defee kon loolu mooy li ma bëggoon a wax ci soppiku soppiku yi nga xam ne wala ci coppat yi nga xam ne Salahuddin bëggoon na koo indi ci jawharatul kamal waaye loolu yal nañu yàlla fayal boroom xam-xam nekk ci tariqa bi bàyyiwuñ ko ca weddi nañ la wax ba mu set te moom wéet na ca xanaa lu ak ay benn benn taalibe yoo xam ne lëndëmal na seen xel lëndal ko ba mënuñoo ràññee baynal xas wa samin su ko defee xam nga euh, al asqam ci ni mu ko firee moom ci ñaari téeram yu am solo yooyu ne mi ngi jóge ci saqama te saqama li muy firi mooy maandu na jub na loolu kalima maghribiya la loolu amuñ ci benn problème loolu leer loolu dafa leer nañ loolu loolu dafa leer nañ waaye comme dañoo nekk ci di raddu taqdisul ashxaas fil suuf yi te danañ yegsi ci fi muy bañe baat bii moom foofu war nañ faa fudd nuun a ram bam ne ñay moo tax jarul ñuy anticiper kon danañ buñ ca yegsee rek danañ danañ danañ ci danañ ci wax liñ ci bëgg a wax lépp incha allah waaye ci nii tey dañuy wax rek ci baatu al asqam ne baat bi mu ngi jóge ci al istiqaama mooy ak ak njub al istiqaamatu ab sulaasi la boo xam ne mazid la te dañoo wax ne is afala tafdil mën nañ koo tëggee ci ab sulaasi boo xam ne mazid la bu boobaa dafay nekk al aqwam comme inna hada al quran yahdi lillati hiya aqwam al aqwam mooy afala tafdilu istiqaama ndax bu boobaa comme fi'lu bi comme ismu bi af sulaasi la léegi zawaid yi lañ dindi siin gi euh, euh, dañ ko cee dolli mazida la ñu dindi ko taagi mazida la ñu dindi ko taagu mujj ga moom itam ñu dindi ko kon lu fi des mooy qaama alif gi cosaanam waaw la ñu wax kon aqwam dindi yi dooleeku bàyyi fa cosaan ya ñu ne kon al aqwam mooy afala tafdilu al istiqama léegi nag bu ñu ñëwee ci jawharatul kamal comme dafa wax ne allahuma salli wa sallim ala ayni alxaqi allati tatajalla minha urushu alxaqaiqi ayn al maarif al aqwam kon aqwam ñëw di afaal tafdilu istiqa istiqa euh, al ayn al maarif al aqwam lu waroon a ñëw al aqwam waaye kon du rafet ndax ñaari baat yu nuroo yi te loolu saju may na la ñaari baat buñ naree nuroo nga soppi benn bi moo tax ñu def al askam al nu mu deme ñu ne xam nga bële dañoo dindi woon yi dolleeku dañoo dindi woon euh, zawaid yi bàyyi fa bàyyi fa usul ya bii nag dañoo dindi aynu ga nga xam ne moo doon alif ga te aslu la ca ñu dindi ko bàyyi fa siin ga nga xam ne moom zaida la ñu bàyyi ko fa wax al asqam ñu ne loolu lu ko nuru fu am ñu ne am na kay ndax am na ci jawharatul kamal bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko imlaa sëtam al barzaxul maktuum wal xutbul maktuum wal xutbul maktuum radiallahu anhu ñu ne ak fan ñu ne lu mel noonu feeñaat na ci waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy mu tëgge baat noo xam ne mu jaawara moo tax mu def ko mooy baat bi dafa am ay baat yu mu yu mu yu mu dendal mu war a sàmm sajo bi tax mu soppi baat boobee bañ koo tëggee ca nañu koy tëggee bu doon dafa beru loolu mooy comme li mu ñaanaloon ñaari sang ya euh, alxasan wal xusayn dafa wax uidukuma déglul bu baax bi kalimatillahi tamma min kulli aynin laamma wa min kulli shaytanin wahamma gis nga uidukuma min kulli shay euh, bi kalimatillahi tamma min kulli aynin laamma min kulli aynin làmm est-ce danañ ko wax bu doon dafa beru parce que baat bi mi ngi ju fi'lu bi mooy alamma mooy wàcc na mooy nazala alamma kon ismu fa'il bi mu limma la war a doon waaye du nekk làmma mais lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa di afsahu man nafaqa bi daad ba noppi di wax làmma ñu ne ndax dafay sàmmoonteeg sajo bi comme dafa wax uidukuma bi kalimatillahi tamma min kulli aynin lamma loolu moo gën a rafet mu wax ne audu uidukuma bi kalimatillahi tamma min kulli aynin mulimma seet ko seetal rek léegi min kulli aynin mulimma loolu moo noonu la ñuy loolu mulimma mooy ismu faa'il bi noon la mooy ismu faa'ilu alamma waaye comme da nga wax ak tamma nga indi alamma moo gën a dëppoog moom yonent bi moo gën a mën a wax ñëpp arab mu defe ko noonu mais bu ko yonent bi defee noonu foofu ëllëg muy imla sayidna cheikh jawharatul kamal wax ne ko aynil maarif al aqwam siratika tammil asqam ana ban dof bu boppam am xatax mooy taxaw di diingat ne loolu ñu koo wax kon defe naa laqad asmatu law naa daytu xayyan laqad asmatu law naa daytu xayyan loolu mooy li ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci beneen xadis eh, te moo gën a dégg ñëpp arab moo gën a mën a wax ñëpp arab Euh, ay jigéen ñu doon dem ci ab rob mu ne leen irjina mazuratin la majuratin waaw irjina mooy wàññeeku leen mazuratin di way bàkkaaru la majuratin te du ngeen am fay mazuratin fan la jóge ba bi mi jóge ci al wizru léegi ma lay laaj mazuratin lañ war a wax wala mawzuratin ban lañ war a wax parce que al izru du ismu bi al wizru mooy ismu bi al wizru bil waaw laa al izru bil bil hamza kon su waxee mazuratin lu tax mu wax mazuratin ndax day bëgg a wax laa majuratin xam nga mazuratin majuratin ñoo gën a ànd mawzuratin majuratin kon sàmmoonteeg sajon dañ la ciy may dañ la ciy may nga soppandiku ci baat yi ni nga leen di tëgge comme ni nga xamee ne shaair bi am na yoo xam ne ay daruur la yoo xam ne dañ ko koy may nga xam ne baat bi du ñu ko tëgge noonu sax waaye sañ na koo tëgge noonu ndax shaair la ndax daruura la loolu misaal la kon yonent bi sallallahu alayhi wa am na ay baat yu mu soppi seenu tëggiin ngir baat yañ dendal loolu boo ko gisee ci xadisu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci jawharatul kamal gis fa mel noonu ban problème nga war am mais al asqam moom dafa noppale dafa noppale ndax li ko tax a noppale mooy moom noo ko firee baax na moom noo ko baax na loolu danañ ci yegg même ni ko noonu yu tilim yi di firee sax ba noonu baax na même noonu boo ko firee noonu mu soo ko firee ni ko Seydina Cheikh firee mu jub waaw noo ko firee rek mu dem waaw loolu moom kéemtaan la goo xam ne yàlla moo ko def ci jawharatul kamal su ko defee kon foofu lay taxawe comme dañoo nekk di radd taqdisul ashxaas fil fikri suufi te ñu ngi ci sunu juróom-benneelu dars danañ yegg ci al asqam bu boobaa du jar moo tax du jar ñuy anticiper yu baree baree bari dañuy taxawee foofu rek waaye bala ñuy taxaw ñu barkeelu ci jàng ko jàng ko benn yoon barkeelu ci nopp ya tàbbi seeni eh, leer tàbbi ca dënn ya cay eh, yamuy dugg seeni boroom eh, làq ak leer moo tax ñu bëgg a barkeelu jàng benn jawharatul kamal barkeeloo ko incha